voilà très cher internaute ñi ngi ak euh, Youssou Dieng ñu gën koo xam mu nekk tamit ci série infidèle di ci interpréter rôle Abdou ñu ngi lay ziar sëñ bi. ngi fay bu baax a baax a baax ah di ndokkeel ñëpp di nuyu ñëpp di ci jiital presse bi nga xamante ni ñoo ñëw wuyu si ñu ci euh, kubbute gi ñuy ubbi euh, drapeau bu mag bi di combat bi dox ci diggante Mama Lamine ak Garga vraiment di rafetlu seen teewaay di nuy Sénégal gépp di ndokkeel ñëpp euh, di leen souhaiter joyeux nowel di ci jiital suñu mbokk chrétiens yi nga xamante ni ñoo bokk réew mi dëkk-dëkk euh, bu rafet bii ñu dëkkee te dara ñaawul waaye di profiter ci occasion bi aussi di euh, wax bonne et heureuse année à toutes les Sénégalais vraiment di ñaanal ñëpp jàmm ñaan yàlla at bi ñuy génn bii ñu dëgmal dàq ko ndax at bi moom metti na lool ba tax na ñoo ngi ñaan njàqare wuñ ci am ak tiis ak naxar yàlla na ko fi yàlla yamale yàlla faxas feebar bi ba dellu ci suñuy activité ñëpp na ci jàmm ci barke Mouhamed. biñ la fi gisee rek bi nga tëlee dañ ne grand Youssou lu mu fi def parce que làmb moo woote sa digganteeg làmb. waaw sama digganteeg làmb man man man je fais partie de la famille euh, de la lutte. Hmm. man ci ci ci ci làmb laa bokk. ndax euh, ku ne làmb ne Ndakaaru. ku ne làmb na Médina ku ne làmb na askanu ngéwél ma juddoo ngéwél yaroo ngéwél màggee ngéwél daanaka làmb falaa fa tàmbalee jàng aar ah, ci jàng tëgg doon sàjj di ànd euh, sama maam Safana Faye ñi ànd di gunge suñu maam euh, Abdou Karim Guèye mi jur Mbaye Guèye Mbaye Guèye ah, di ànd ak sama maam Vieux Sang Faye di dem làmb di ànd ak sama maam Doudou Ndiaye Coumba di dem làmb te samay maam nag ñoo ñoo ñoo sos làmbi Ndakaaru bu naa mbaasay sama maam daawudaay sama maam ah biram géey sama maam mbaay mboroy sama maam musée say sama maam seng-sengay sama maam kon nag euh, man maay làmb waaye ma doonaat làmb ci beneen côté ndax laaj papa jëng moo ma jur ah, loolu ñëpp xam nañ ko kon nag lamb kenn mënu ma cee génn <laughs> amateur la hors absolument laaj Papa Dieng moo la jur comme ni nga ko waxee ñëpp xam ko ci làmb ñu jël drapeau bi daal koy duppee diggante Mama Lamine ak Garga 2 ban satisfaction sentiment nga ci am. contenté contenté contentement lay am lañ ci am bu mag a mag a mag ndax El Hadj Papa Dieng nag euh, am na cër ci làmb ndokk yàlla bi ko Vox Arena xamee ba jagleel ko bis bi. lu ëpp ci ay yëngoom moom nit ku simple la bëggul sax di di di fësal boppam ci yu bëri waaye liggéey bu mu def ak euh, yéene ak engagement bi mu am ci sport rawatina làmb euh, xëy na moom la ko yàlla fayee ba Vox Arena ëlbatiku di ko sargal ñu leen ciy remercier bu baax a baax di leen wax ne lu ñu rafetlu la lu ñu neex la te euh, fii ba bañ cay àgg dinañ xam ne neex nañu rafetlu nañ ko ñuy woo sénégalais yëpp ñu ànd parce que nu ngéwél gépp jug ñu xam ne alaaji papa jeg lañ tuddee bis bi te bis bi nag day bis bu rëy ah, kon kontaante rek bisu ngéwél la bisu ndakaaru la bisu sénégal la kon kontaante rek lañ ciy am vraiment di ñaan yàlla nag euh, ñu dugg ci at wi ba am date tàmbali yëpp yi ba ba ba ambiance làmb dundaat nit ñi dellu dundu làmb ku la xam-xam la ak Wally Seck le grand chanteur kon mun nañ ko xaal moom itam ci bis bi waaw waaw làmb ji dama ci dama ci dama ci bind way dama ci bind wu rëy woo xamante ni ndaanaan yëpp laa ciy wayloo bu soobee yàlla Wally dina way ak yeneen daanaan yu mag yu ne ci réew mi dinaa leen woyloo bu soobee yàlla euh, ngir won Sénégal na yëf yi daf ma ñor ngir won Sénégal na yëf yi euh, du lu ndaw lii ñu def mel ni man lañ ko defal kon man ci sama participation ak li ma mën ak li ma xam ak stuut ci aar dinaa ko fexe ba composé woy wu rëy woo xamante ni Alaaji Papa Dieng lañ koy woy ak événement bi mu gunge événement bi ba ko roog ñu cay àgg. def promotion événement bi ba mu jeex ci gàttal daal dina ci def euh, lu lu mag. ci avant pendant et après l'événement bu soobee. wax nga ko sànq nga nekk doomu géwél jaar fi doomu géwél wala jaar jaar ci tëgg également ak ñoom seen mais actuellement nga am esthétique communicant nan nga def ba nekk communicant bu mag. waaw euh, jàng ba mu xewee la la ku ne jot ci communication waaye communication ngéwél la juddoo fii ci Afrique <laughs> communication ngéwél la juddoo bu buur daan wax ak penc mi géwél a koy yëgle bu bu information amoon ñu bëgg a ku ne jot ci géwél a koy yëgle bu ñu doon dem xare. ah bëgg ku kañ euh, jàmbaar yi ak xeexkat yi ba ba ba ba ñu xeex ko ci ndam ak ak ak njom géwél yaa doon def kon man nag euh, je suis ne dans euh, la communication après <laughs> Alaaji Papa Dieng di sama baay tamit. au niveau des diplômes yan diplôme wutuma ko. wutuma ko déedéet. xam nga diplôme ah? uh-huh. warum réew te wër naa